seetaan suñu TV kon ñu ngi fii ci euh, édition 8 mars bu 2016 bi ñu ngi nekk ak euh, benn jigéen soxna si tur bi naka la. ah. man bi naka la. man Mouminatou Gassama laa. Mouminatou ginnaaw bi nga ñëwee ci cérémonie bii di màggal jigéen ci àdduna bi yëpp te ñu nekk ci commune bu Kaaral ñu koy màggal lan moo ci sa xalaat. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Kaaral yëpp di leen gërëm di leen sant di sant waa mairie bi. maire bi na ko fi yàlla yàggal mu ngi liggéey dëkk bi kontaan nañ nag bés bi ñoo ko moom dañ cee kontaan ba jeex tak parce que bési jigéen ñi la tey dañuy bëggee ba kontaan ñun nag yéen góor ñi yéen la ñu wax ngeen jàppale ñu tey si suñu bés bi ngeen bëggal ñus voilà jërëjëf euh, madame kon euh, thème bi ren ni ko xamee mooy lan moo war a nekk taxawaayu jigéen ci biir kër gi maanaam taxawaayu jigéen ci biir kër gi ñu koy wax le rôle de la femme lan moo war a nekk taxawaayu jigéen ci biir këram. taxawaayu jigéen ci biir këram bëri na. mooy toppatoo première fois mooy toppatoo suñu jëkkër yi nit amul lu may jëkkëram toppatoo ko si biiram ak mbokkam ak yéreem ak am ak jàmmam nga may ko jàmm ci kaw loolu nag si suñu doom yi di leen éduquer si yar ak teggin di leen ñaanal tamit xale yi dem si kanam donnu seen baay. jërëjëf madame kon ma jàll si beneen jigéen. voilà kon ñu ngi ak beneen jigéen fii ñu koy wax euh, madame. ñu ngi ak beneen jigéen muy Ngoné Badiane Ngoné yow. Euh, ginnaaw bi ngeen ñëwee ci 8 mars bi muy màggal jigéen ñi ci àddina bi yëpp yéen jigéenu Kaarang ngeen koy màggal comme ni ñu koy màggalee ci àddina bi yëpp lan moo nekk sa xalaat tey ci bés bu rafet bi. ñu ngi sant yàlla jul ci yonent bi sant yàlla sant suñu ñaari waajur bu baax a baax ginnaaw su loolu weesoo ñu ngi sant bu baax a baax di ko ñaan yàlla di ko feet ay at yu bëree bëree bëri bëgg ñu bés bi ñu wax nag. waa léegi thème ren bi moom mooy taxawaayu jigéen ci biir këram tubaab di ko wax le rôle de la femme au foyer lan moo war a nekk taxawaayu jigéen guy sëy ci biir këram. jigéen dafa war a gérer këram jigéen mooy borom kër du kër jigéen mooy borom kër dafa war a toog këram gérer bu baax a baax a baax ndax góor ñi duñ kër jigéen ñun jigéen ñun ñoo suñuy borom kër jigéen moo war a ay xalem jigéen moo war a gérer jëkkëram jigéen daal dafa war taxaw bu baax si biir këram. waaw jërëjëf soxna si kon ñu jàll si beneen jigéen rek euh, soxna si yow tam ñu ngi maa ngi lay fay sañ bi. tur bi naka la. man la Ramatoulaye Guèye. Ramatoulaye Guèye yow yan lan mooy sa euh, sentiment yi njëkk ci biir journée de la femme bi ñu nekk. kontaan si rek ñu dugg si bisimilah rahmaani rahiim jeexal ko si alhamdulilah rabil aalamiina. journée mondiale de la femme lu ma ci xam sax bariwul mais am na lu ma si xam tuuti parce que jigéen moo mën a gérer këram gan su ñëwee si jigéen ji lay dal. jigéen mooy togg jigéen mooy fóot jigéen mooy paas jigéen mooy gérer ay doomam bu ñu waree jàng école su ñëwee mu recevoir ay doomam jox leen ñu lekk jox leen ni naan ku ñëw si borom kër gi tamit boo ko fekkul boo fekkee jigéen ja rek mel na nga fekk nga si borom kër gi jigéen daal mooy biir jigéen mooy bit góor mu mënut ta dem sans jigéen waaye jigéen it mënut ta dem sans góor. mbokk yu seetaan sunu TV ba léegi rek ñu ngi ci huit mars bi maa ngi ak euh, Mbaye Sow Mbaye asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum yéen waa Kaar ak kenn ku ci nokki ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant ki teew ak ki teewul ñu mën ak ñu ñun ñëpp di leen ñaanal ñu tëdd yal na leen yàlla yëkkat di leen ñaanal ñu bëgg ñëw te mënuñoo ñëwit yal na leen yàlla teewal déwén ñu fekk ku ñun ñëpp si barke Seydina Mouhamed. léegi 8 mars bi ñu nekk thème mu ren bi moom mooy taxawaayu jigéen ci biir këram lan moo nekk sa xalaat ci thème boobu noonu. taxawaayu jigéen ci biir këram moom bañ na jigéen ci biir kër rek lañ ëmb lépp jigéen mooy borom kër su ma yeboon jigéen mooy borom kër parce que góor ñi dañuy xëy di daani seen doole dong di daan seen doole di ñëw di indil jigéen ñi kon donc jigéen mooy borom kër ku ne xam na ne jigéen moom jigéen la rek jeeg ci wër këram da war a toog gérer gérer sa say gérer sa jëkkër ba mu baax toogu toogaayu jigéen di dox doxuñu jigéen jigéen tam balay mën a complété ko foofu góor a ko mën a jàppale. kon yéen góor ñi ñu ngi leen gën a ñaxte ngeen jàppale ñun jigéen parce que jël nañ décision pour doon jigéen ba faw ilaa yow mi diine tey nag ñu ngi leen di félicité ñoom ñëpp képp ku jigéen rek yaa ngi ci journée bi tey macha allah merci. merci ma dem ci Mariama Goudiaby Mariama Goudiaby ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant di leen gërëm. aca tal mooy sa xalaat ci bés bi ci 8 mars bi ngeen di célébrer. dañ na journée de la femme tey femme yi ñoo ñoo moom journée bi daal xanaa góor ñi jàppale ñu rek di ñu yërëm. ndax jigéen motul. jërëjëf léegi thème bi lan moo ci sa xalaat taxawaayu jigéen ci biir këram. xanaa di góorgóorlu rek ñu ñuy jàppale rek ndax jigéen li ma la wax rek jigéen motul waaw jigéen moom lu ndaw la rek góor ñi nañ ñuy jàppale rek Sénégal jëm kanam. jërëjëf Mariama Goudiaby. waaw mbokk yi seetaan suñu TV ñu ngi nii ak soxna su tudd Aïda Cissé Aïda Cissé ñu ngi lay nuyu. Aïda Aïda suñu TV mu lay nuyu. maa leen di fay. waa lan mooy sa xalaat ci thème bi jël ren moom mooy lan moo war a nekk taxawaayu jigéen ci biir këram. ah salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant yéen nag da ngeen ñoo ndax ndax dañ ne jigéen ñi tey rek lañ moom te yaakaar naa bés bu nekk bési jigéen la bés bu nekk jigéen ñee ko moom. jigéen moom bu nekkee ci kër jigéen daal mooy yëpp jigéen mooy jur mooy namp mooy nampal mooy boot mooy téye mooy téye kër gi mooy yëpp daal jigéen la. kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen waaw jigéen daal mooy yëpp. léegi bés bi nan nga gisee. kontaan ki sawar ci. baax na Aïda sunu TV mu ngi lay gërëm di la sant ñu ñëw mbokk yu seetaan suñu TV ak euh, Khady Dramé Khady ñu ngi lay waa Thiam ñu lay fay. waaw léegi ginnaaw bi nga solo ànd ak sa groupement comme ni ko yenn groupement yëpp defee lan mooy sa xalaat ci 8 mars bi ngeen di célébrer tey. waaw lu ñuy célébrer Thiam dafa bari parce que mbirum jigéen ci kër bu ñu koy wax foog naa ne duñ fi jóg duñ fi jóg tey fi la ñuy fanaan jigéen ci biir kër lépp a ko war man dama gis na jigéen ci biir kër amul dara lu ko warut parce que jigéen ñi ñooy suñu yaay ñooy suñuy maam ñooy suñuy doom yi. moo yi seetaan ba léegi suñu TV kon ñu ngi waat fii rek nekkaat fi ak beneen couche boo xam ne tamit si population lañ bokk muy association des morts de Karang maanaam mooy association bi boot naar yi dëkkee ñu jox kàddu gi monsieur Aliou Babou mu sànni ci ay kàddu yu gàtt rek Aliou Babou lan mooy sa xalaat si journée jigéen ñi. xanaa journée jigéen bi kontaan ci ba sama xol sedd rek tey ñaanal monsieur le maire Gomis nga xam ne mooy tax ñu daje fii ba jigéen yi mën a dajaloo ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla fi mu bëgg a yóbbee Kaarang yàlla na ko fa yàlla yóbbu. Eh, xanaa kontaan ci sunu jigéen yi ànd ak ñoom mobiliser ñoom jàppale leen ñu ñëw seeni càmmiñ ñoom ñu nekk sunu kanam su loolu weesoo maa ngi leen di xamal ne bés ni ki tey association Mor de Karang mooy association les Mor du Sénégal ay naaru Kajoor ñi gën leen a xamee ñu ngi fii ci Karang groupe la groupement la bu am doole boo xam ne assan ay dara moo koy jiite gannaaw monsieur Assane Aydara Ami Dieng mooy adjoint ba ak man Alioune baabu maa ngi jox nag sama jigéen yi jigéen yi tam ñu am lu ñu wax. jërëjëf Aliou Babou kon ma ñëw ci président association boobu muy monsieur Assane Aydara Assane Aydara yow tam nga sànni ci ay kàddu ginnaaw bu ñu la lan mooy sa xalaat ci bésu jigéen ñi. waaw bésu jigéen bi bés bu rafet la bés bu ma kontaan loola léegi maa ngi sant waa dëkk bi di leen ñaanal yàlla mu yóbbu leen kanam yàlla def ci xéewal léegi dama bëgg dama am fi benn jigéen boo xam ne moo jiite jigéen yi ñoom la ñuy jiital ci kaddu bu ñuy wax ma Soda Fall dama bëgg nga jox ko moom itam mu animé tuuti mu ngi nee toog. jërëjëf kan kan. waaw kon mbokk yi ba léegi ñu ngi ànd ak chaîne de télévision sunu TV war a ñëw ci 8 mars bi nga xam ne jigéen ñi Kaarang yëpp la ëmb ñu loo tey ak association naar yi dund fii ci Kaarang ñoom tamit comme ni ko yeneen jigéen ñi defee ñu ñëw pour màggal bés bi kon yaa booy ñu ngi lay leen di fay ci seen tur ak seen sant. waa léegi lan mooy seen taxawaay yéen tamit ci 8 mars bi nga xam ne day màggal jigéen ñi Sénégal jigéen ñi bi yëpp sax. jigéen ñi àdduna bi yëpp lii tey suñ taxawaay ci bés bi tey ji kontaan ci bés bi rek ndax euh, coono yu jigéen yi wante ba ñu seet xam ne war nañoo jagleel jigéen ñi bés ñu ja tànn bés boobu jagleel ko jigéen ñi ñu ni tamit dañ ciy kontaan sawar ci lool lépp luñ ci mën ak luñ ci mënu tamit dinañ ko ci jéem. jërëjëf léegi dafa am thème buñ tànn ren moom mooy lan moo war a nekk taxawaayu jigéen si biir këram am na conférencière boo xam ne dina ñëw ci waxtaan woowu maanaam li muy waxtaanee mooy lan mooy taxawaayu jigéen ci biir këram mais yow lan moo ciy sa xalaat lan moo war a nekk taxawaayu ci biir këram taxawaay jigéen ci biir këram bari na ndax fi mu nekk nii jab jëkkër ji dafa am dem tànn soxnaam indi ko ci biir kër gi teg ko foofu mu war a saytu lépp loo xam ne jëkkër ji def koo indi ak lépp loo xam ne moom mu ngi koy sonne ci biir xale yi ndax jigéen tey mooy ëmb mooy imbi coono gi ci mooy sang mooy fóot mooy defar lu ne mooy bale mooy defar yu ne ci biir kër gi kon nag jigéen taxawaay jigéen ci biir kër dafa am solo lool lépp lu baax ci biir kër gi jigéen def ko war a li lépp lu fay loo xam ne baaxut ci biir kër gi tamit jigéen ji def ko war a dindi bara borom këram sax di ko yëg loolu yëpp taxawaay jigéen la ci biir kër. organisation bi nga gis fii. lan boo amoon loo ciy dolli lan nga ciy wax pour beneen at mu gën a rafet rafet na ba pare mais pour beneen at soo gisoon na war nañ cee dolli leneen lan ngay wax. organisation bi rafet na torop mais bu gënoon a rafet nii dina doon baax ndax teel a ñëw bi ak génn bi mu gën a bëri ni baree ni encore lu ci yokk lii la dañoo war a génn jigéen ñi wane seen bopp ñu gis leen ci fu ne depuis ci suba bu heure bi jigéen ñi war a taxaw ci biir ci organisation bi ba ñun ñëpp ñu war a kontaan ci loolu ku ko gis tamit xam ne mobilisé wu nañu ren waaye bu déwénee buñ defee lu ëpp lii tamit day gën a neex rek. Sunu TV mu ngi lay gërëm di la sant léegi bëggoon naa ngeen yëngalal ñu tuuti ñu ñu ñu ñu mos ci seen culture bi. maire lii na lii naka la tudd. lii tabala. tabala bi est-ce que bëggoon ko yëngalal ñu mas ci tuuti. lii mooy tabala naar. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci beaucoup kon ba léegi rek ngeen ànd ak euh, seen chaîne de télévision Sunu TV ñu ñëw pour couvrir événement bi di 8 mars comme euh, nuñ ko amee habitude di ko defee lu xew ci biir dëkk bi rek Sunu TV day ci am taxawaay bu rafet ñu ñëw pour gunge jigéen ñi jàppale jigéen ñi maa ngi fay madame Badji madame Badji Sunu TV mi ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay fay ah. waaw madame Badji <laughs> madame madame bat Badji dañu bëggoon rek nga wax ñun si ñaari kaddu. lan mooy lan mooy sa xalaat ci 8 mars bi organisation fi mu toll nii noo ko gisee. Ah, waaw organisation neex ba dee parce que fu mu nekk nii nit ñaa ngi ñëw yëpp kii nañu jaar nañu ko ci yoon. waaw madame Badji taxawal ñu waxtaan ak yow tuuti rek taxawal <laughs> waaw jërëjëf madame Badji dem na Mamadou. moom mooy ne problème waaye. Ah, dem na bi neex na trop ndax bés boo xamante ne dañ ko jagleel jigéen ñi bési jigéen ñi mënut a naqari. parce que tey ñun ñun ñoo aye dañ ko war a defar ba mu baax ba mu très bien man bañ naa ba ma xëyee tey ci suba damaa jox papa Déthié dépense moom ak Fane dañoo demoon marché. lu mu togg. ceebu yàpp suweer lañ togg tey. na. bu trop sax. maa ëppul xorom. non na képp. moo ah, gisee journée bi tey. journée bi neex na trop. at mu lem ñi tànn si benn fan boo xamante ne jigéen ñi lañ ko jag lañ ko jagleel. Mhm. vraiment lu rëy la si ñun. ba tax na kontaan nañ trop kontaante bi rek la ñu gis. su ngeen amee ay doléance. lan lan moo ëpp tey ci seen doléance loo xam ne su ngeen sañoon daal góor ñi gën leen ci jàppale. pour ñu mën ñoo jàppale lu ñu gën a bëgg rek loolu mu la ñu gën a soxla si ñoom ñu nekk suñu suñu complice waaw lu bëri loolu bu ñu ko defee ñu gën cee kontaan gën ñëw gëstu en tout noo gisee journée bi yaaw journée xanaa bari hôtesse bari hôtesse bari hôtesse rafet neex ba bëgg a dee kay neex ba bëgg a neex ba ëpp a neex tey bi nga xëyee joxe nga dépense joxe naa dépense bu bëri sax togg nañ la toggal nañ la. waaw waaw bu baax sax. kan moo togg añ bi. xanaa monsieur Keeba. monsieur Keeba. waaw waaw moo togg añ bi. moo togg añ. añ bi neex na. sant yàlla neex na. sant ngeen. Hmm. Euh, mobilisation bi nga gis tey loo ci wax. sant yàlla progrès mu ngi progressé. mu ngi progressé. mu ngi progressé. Hmm. chaque année daal. Hmm. àjjana yokk daal mooy jigéen bu ëllëgee. bu ñu jàpp si. Mhm. muy gën di réussir. Mhm. ñu ko commencé muy continuer daal. Mhm. chaque année muy gën yokk daal. kon tey kontaan nga ci. kontaan naa si loo loo xam la femme. ah neex na neex na trop tey moom suñu bés la dañuy def ba mu baax dañuy def ba mu baax ñoom moom na góor ñu togg na góor ñu togg añ togg reer sang xale yi bañ set pour seen yére tey moom ñoo appoment suñu bés la ñun ñoo appoment ñoo war a def lépp. di ngeen joxe dépense. ah di ngeen joxe dépense. mun nañoo joxe joxe dépense mais na ngeen moo lépp nag def lépp. ñu defoon organisation bu rafet bi euh, bam xalaat bam sentiment bu njëkk ngay wax mbokku Kaarang. kontaan ya asalaamaaleykum jigéen ñi maa leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam kontaan naa trop trop trop ci organisation bi ndax jigéen ñi génn nañ massivement jigéen ñi ñëpp génn nañ kontaan nañ bu baax a baax ci bés vraiment affaire bi rafet na jekk na ta ah, macha allah. waaw léegi organisation bu rafet bii comme yow yaa ko jiite nan ngeen def ba réussir organisation bu rafet bii. xanaa ànd ak yi ñoom ñoo ñu jàppale ci organisation bi ba mu mag ba mu mën a mel nii ndax kenn nit rek xale yëpp ñoo génn ñoom Ablaye Diatta ñoom Fatou Yacine Badiane ñoom ñëpp ñoo génn jàpp ci organisation bi ba mu mën a jaar yoon. madame Sène gis nañ ne nit ñi génnaguñ te daanaka seen séntu jeex nañ te nit ñi ñëwaguñ est-ce que yaakaaroon seen séntu ñoo manqué. waaw seen chaise yi dinañ manqué waaye dinañ jëliwaat yeneen chaise ñu ngi nii dem pour jëliwaat yeneen chaise bëgg nañ chaise yi dëkk bi yëpp dañ koy luye tey indi ko fii tey jii ci bés bi. jërëjëf léegi thème bi ñu choisir mooy lan moo war a nekk taxawaayu jigéen ci biir këram loolu tam ban ban message nga ci jàllale yow en tant que responsable femme. waaw message bi may jàllal rek xanaa bépp jigéen boo xamante ne yaa ngi ci sa biir kër da nga a taxawu taxawu jigéen ndax jigéen ñi ñoo yore ñooy bale ñooy fóot ñooy def lépp ñooy inscrit xale ñooy dem ca école ba inscrit ñooy dem ca marché ba yéen def yëpp ma di ma leen di ñaax ñoom ñëpp ne leen nañ góorgóorlu nañ yokk a góorgóorlu ci seen biir kër. jërëjëf suñu TV mu lay gërëm di la nga ki xam ne yor lépp luy jigéen ci de comme ça ñu jëm ko teeru may ko tuuti loxo moom moo yor GPF départemental de Foundiougne

claro. Uhum. allo allo waa kon mbokk kaarang ñu jóg euh, màggal dugg si ajaratu Kumba dàgga Diop moom moo nekk présidente départementale des au niveau du département de Foundiougne kon kii dugg si léegi moom mooy Kumba Dagga Diop Kumba Dagga Diom nekk présidente départemental bu ëmb GPF yi nekk ci département bu Foundiougne yëpp kon euh, moom mooy dugg si noonu léegi yaakaar naa ne monsieur le maire lañu ñuy xaar rek bu ñëwee ñu commencé euh, journée bi ñu commencé cérémonie bi xam naa monsieur le maire il va venir d'un moment à l'autre parce que asalaamaaleykum jigéenu Kaarang ñu ngi sargal jigéen ñëpp jigéeni àdduna bi yëpp rawatina jigéenu Kaarang ci seen bés bi nga xam ne yàlla moo leen ko jagleel euh, ñu leen ci sargal di leen ci ndokkeel ren nag nekk na année bu spécial ci Kaarang ginnaaw bi ñu xamee ne at yëpp passé daan nañ célébrer journée mondiale de la femme fii ci Kaarang mais waa AFEC ñoo ko daan organiser muy association des femmes enseignantes de Kaarang et environ kon AFEC googu sax balaa ñoo def lenn dañu leen di gërëm di leen sant may ñaan ngeen tàcc waa AFEC waaw ak seen présidente bi madame Dieynaba Sy parce que mbir mi bu tolloo fii ñoom ñoo si jàpp ba mu egsi fii ren nag ñu décidé ne dañuy jël organisation bi jébbal ko jigéenu commune bi yëpp ba tax na gis ngeen jigéenu commune bi yëpp euh, impliqué wu nañ ci journée bii léegi nag comme dañuy xaar monsieur le maire pour war a commencer mbir mi dañu bëggoon a gagner tuuti temps léegi au lieu ñuy xaar monsieur le maire mu ñëw ñu commencer programme bi dañuy commencer def présentation wu conférencière bi nga xam ne monsieur le maire bu ñëwee du ñu perte temps parce que 6 heures léegi mu jot heure bu timis passé rek nit ñi mën na ñëw commencer di njibbi léegi monsieur jaata dama lay jox nga def présentation wu conférencière bi ci français après man ma ñëw def présentation bi ci wàllu olof bi kon monsieur jaata ma jox la kàddu gi. merci monsieur Thiam ñu ngi nuyu bépp Kaaran euh, euh, kenn ku ne turam ak santam di leen euh, rafetlu seen teewaay bi ak mobilisation bu rafet bi lii moo wone ne jigéen bu aaye macha allah donc alhamdulilah kon tàcc leen jigéen ñi ci mobilisation bi. comme ni ko waxee monsieur Thiam ma ñëw si madame saavo Madame Mama Saho est née en dans les îles du Saloum, précisément à Niodior. Euh, si je fais l'économie de son cursus scolaire élémentaire moyen général, je vous apprends qu'en 1975, elle a eu le baccalauréat avec mention. Tâche leen Et c'est cette, euh, ce bac qui lui conduit à l'université chez Anta Diop, madame. Alors, je fais l'économie des autres parcours pour venir euh, dans, je ne sais pas, hasard pour hasard ou destin pour destin. Madame se retrouva devant, n'est-ce pas donc, des Sénégalais qu'il faut former Donc le rôle de la femme dans le foyer, madame, c'est le rôle de la femme dans la société. Et nous allons vous rappeler un peu son passage à Sokon, à En 2002, c'est à Sokon. Et en 2009, Madame Mama Saho, n'est-ce pas donc, va enseigner au lycée de En ce moment, c'était le CM. Et aujourd'hui, comme disait l'autre, Jigen Bahna et Gor Bahna Jigen Bahna. Elle est principale au CM de Medina Sangako. Tachilen Kowai. Kon, qui def conférence tay, euh, ce n'est pas n'importe qui, c'est une connaisseuse de notre zone de notre géographie, de notre passé. Madame, si vous avez quelque chose à, à, à, à ajouter par rapport à ce que je viens de dire en français. D'accord, en Wolof encore. D'accord, en Wolof. OK. Monsieur. Ah, merci monsieur jaata comme ni ko monsieur jaata defee ci wàllu français dama koy def ci wàllu olof euh, kii di madame ma Sakho nga xam ne moom moo ñu war a defal conférence su tey bi ma fàttali thème bi moom mooy le rôle de la femme dans la société lan moo war a nekk taxawaayu jigéen ci biir société bi waaye balaa ñuy continuer présentation bi ñu leen di ñaan ngeen jóg taxaw ngir nu monsieur le maire mi dugg si ci bâche bi kon ñuy ñaan ñëpp ñu jóg taxaw rek di sargal kilifa dëkk bi tey di monsieur le maire de la commune de kaarang di monsieur Diogine Gomis kon ñuy ñaan ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax moom rek lañ doon xaar pour commencer suñu cérémonie nga dugg si si jàmm ñëw ubbi cérémonie bi su ko defee ñu mën a continuer ba journée bi jeex si jàmm. voilà ñu jóg sargal monsieur le maire ñu tàcc monsieur le maire bu baax waay. kon monsieur le maire vous êtes le bienvenu ici au niveau de la cérémonie qui célèbre la femme en ce 8 mars dénommé journée mondiale de la femme. monsieur le maire mu ngi noonu di nuyu jigéen ñi di saafante ak ñoom xam ne jigéen moom mooy yor àddina jigéen moom moo meññ àddina moo yor àddina jigéen mooy lépp kon tey jigéen ñi la ñuy sargal monsieur le maire ñëw jëmmalal leen seen bés kon monsieur le maire jigéen ñi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci taxawaay bu rafet bi nga am ci seen bés ñuy commencé cérémonie bi ak ñaan ñuy ñaan oustaz Dramé mu jege sa fii ñu jox ko kàddu mu defal ñu ñaan oustaz Dramé Dieynaba Sy madame ba Sy soxla nañ la fii oustaz Dramé ñu lay ñaan nga jege sa fii ñu jox la micro bi nga sànni suñu mbokku jigéen yi ñu ñaan ci cérémonie bi ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggali ko ci alhamdulilahi rabil alamin kon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 man dha alladi yashfau indahu illa bi idnihi yalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuxituuna bi cheyin min cilmihi illa bima shaa wasica kursiyuhu alsamawati walarda wala yauduhu xifduhuma wa huwa alcaliyu alcazim bismillahi arrahmani irrahimi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani irrahimi qul acuudu birabbi alfalaq min sharri ma xalaq wa min sharri gaasiqin idaa waqab wa min sharri nafaadati fi l-uqad wa min sharri xaasidin idaa xasad bismillahi irrahmani irrahim qul audu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas min sharri lwaswaasi lxannaas alladi yuwaswisu fi suduri nnaasi min aljinnati wannaas allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadii ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 Euh, oustaz yàlla na yàlla nangu ñaan mën nga mën nañ la libéré nga dem léegi damay jox kàddu gi monsieur Diatta mu waxal leen programme bi ñu fi nam ma def tey mu liiral leen programme bi balaa ñoo merci monsieur Thiam euh, ñu ngi euh, ñëw si programme bi donc euh, j'aimerais vous lire le programme de la journée du 8 mars 2016 à Caran euh, le thème euh, je le rappelle c'est le rôle et responsabilité de la femme au foyer thème qui sera euh, introduit par Madame euh, Mama Saho, principale du CM de Medina Sangako. Euh, après les prières que vous venez d'entendre, ce sera le tour de l'élu de la ville qui va prendre la parole pour euh, souhaiter et, et donner, n'est-ce pas, donc le temps pour le démarrage de la conférence. Après, la présidente de la Fédération des femmes de Caran, Ensuite, la présidente de l'association des femmes enseignantes de Caran et environ. Et après, nous allons remettre la parole à madame la conférencière. Et après, juste après la conférence, il y a l'imam qui va vous résumer, n'est-ce pas donc, le sens, n'est-ce pas donc, du thème par rapport à la vision de l'islam. Donc, imam Babacar Mbaye vous le fera, n'est-ce pas donc, après la conférence. Ensuite, euh, il y aura des remises de prix. et le premier prix sera dédié au bébé de, du 8 mars 2016. Donc surprise pour surprise. Le deuxième prix sera remis à la présidente de l'association des femmes enseignantes et environ de 40. Ensuite, madame la conférencière aussi va recevoir un cadeau. C'est bien ça? Ma, ouais, madame Diara et madame Dia. directrice de l'école de Passy donc moom tamit elle va recevoir un cadeau donc voici le programme monsieur Thiam donc je vous remets la parole. voilà merci monsieur jaata kon may fàttali rek ne monsieur le maire ci délégation mi ngi ànd ak monsieur Daouda Ndiaye nekk conseiller municipal ci commune bu Karang Pos comme ni ko monsieur jaata defee ci kàllaama nasaraan ma ñëw ci wàllu olof bi bi ñu génnee ci ñaanu imam bi dinañu jox kàddu borom dëkk bi muy monsieur le maire mu dalal. ay ganam ñu jógee ci monsieur le maire dinañ jox présidente madame Fat Ndiaye Diouf nga xam ne moom mooy présidente fédération bi organisé cérémonie 8 mars bi ma leen ñaan ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax bu ñu jógee ci madame Fat Ndiaye Diouf dinañ jox kàddu tamit keneen koo xam ne mérité na ngeen tàcc ko moom mooy madame Dieynaba Sy di présidente bu AFEC AFEC mooy kuréel gi ëmb jàngalekat yu jigéen yi nekk ci Kaarang ak li ko wër nga xam ne ñoom ñoo doon organiser lii balaa ñu leen koy jox yéen jigéenu Kaarang kon ma leen di ñaan ngeen tàccuwaat madame Dieynaba Sy suñu jógee ci madame Dieynaba si dinañ jox kàddu gi la conférencière di madame Mama Sakho nga xam ne buñ ci tollee sax comme monsieur Diatta defoonoon na leen présentation ci wàllu français dinaa ñëwaat ci olof bi bu ñu jógee ci foofu nag jigéen ñi ñu ne dafa am ñoo xam ne foog ñu delloo leen njukkal kiñ ci njëkk a delloo njukkal nag mooy bébé 8 mars date 8 mars may ñaan ngeen tàccu bu baax a baax a baax kooku tam dinañ ko jox benn cadeau dinañu jox cadeau tamit waa AFEC jaarale ko ci seen présidente mooy kuréelu jàngalekat yi nekk ci biir kaar jàngalekat yu jigéen ñi bu ñu jógee foofu tamit conférencière du jour di madame Mama Sakho tamit dinañ ko jagleel benn njukkal ak madame Dia nekk directrice d'école fële ca Passy nga xam ne moom moo doon def conférence bi ci at yi ñu génn moom tamit dinañ ko jagleel benn njukkeel euh, may fàttali tamit ne am nañ fi benn invité de taille muy madam Koumba Daga di présidente départementale des GPF du département de Foundiougne may ñaan ngeen tàcc ko bu baax tamit léegi comme ni ma leen koy waxee woon rek bu ñu jógee ci conférence bi tamit dinañ jox kàddu gi imam Babacar mbay nga xam ne moom mooy jiite jumaa bi nekk fële ci post douane bu Kaarang moom tamit mu tënk li madame Mama Sakho wax mu tënk ko ci wàllu diine ngeen tàcc tamit imam Babacar Mbaye bu baax léegi dañuy dugg rek ci cérémonie bi ñu jox kàdd gi monsieur le maire de la commune de Karang di monsieur Diogine Gomis mu dalal ay ganam kon monsieur le maire vous avez la parole donc euh, jërëjëf Ibra Thiam donc euh, jërëjëf euh, di nuyu d'abord suñu gan gi Kumba Daaga jóge Foundiougne ñëw pour assister cérémonie bi 8 mars bi di nuyu aussi invité bi conférencière bi moom sax waruñu ko nuyu parce que fii la dëkk ak ñun at yi moom dafi doon nekk suñu yaay maama saaxo di organiser ak ñun di nuyu suñu yaay bële madame Cissé moom tamit nekk euh, jigéen bu jàmbaare nekk un exemple si jigéenu commune Kaaram di nuyu ñaari imaam yi toog di nuyu sama naataango bële Daouda Ndiaye di nuyu jigéen Kaarang yëpp yi fi toog euh, daaw dama ne woon ne kontaan naa mais ren moom dama ne xaw ma mënu ma am moo bi may qualifier lii lii kenn mënu ko qualifier kenn mënu wax lan la dama leen ne daaw suma objectif li taxoon may def politique mooy kaarang yëpp nekk benn loolu man mooy sama objectif loolu ma taxoon may daanu di daw di jóg di daanu di jóg di daanu ba tey tey bu ma gisee jigéen kaarang yëpp naar yeeg ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp toog nii damay ne sama objectif atteindre naa ko à cent pour cent man lii rek laa doon ut jigéen yi nekk benn góor yi nekk benn xale yi nekk benn ñëpp nekk benn parce que liggéey dëkk bi du benn nit moo ko mën a liggéey ku leen wax ne moom mën na liggéey dëkk bi daleen leen di nax dëkk bi ñun ñëpp ñooy ànd jàppalante liggéey ko donc li ngeen def nii tey jàpp naa ne lii commencement la te lii day wéy pare nañu commune bi pare na jàppale leen ñu ànd ñun ñëpp ku nekk ñu xam sa soxla ñu ànd ñun ñëpp tabax kaaran pour suba suñu doom yi noppalu parce que comme ni ma ko doon waxee kaaran dañu ñu jàppoon ne waa Gàmbi lañ mosuñu boole ci Sénégal donc tey yéen a ngi wane na ci Sénégal ngeen bokk tey am na commune yu bari mënuñu def li ngeen def donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. di ko gërëm moom mi nga xam ne dafa fexe ba xol yi nekk benn ngeen nangoo nekk benn si njiitu Fat Ndiaye ak njiitu madame la maire ñu bëri ñu bëri comprendre ñoom lu tax ma jël ko def ko sama wet parce que lii rek laa doon ut bu fekkoon ñun mairie bi ñun ay góor kese ñoo fa nekk lii duñ ko mën donc lii moo nekkoon sama objectif lii rek laa doon ut madame le maire merci merci encore une fois merci donc pour ma ñëwee si thème bi je crois que yéen dafa am thème national yéen ngeen tànn seen thème mais seen thème bi aussi am na solo seen thème bi am na solo donc dañuy ñaan ñëpp ñu fi nekk ñu déglu bu baax li conférenciers yi di wax parce que xam naa xam ngeen ko mais dañ leen di fàttali rek ngeen déglu bu baax lu ñuy wax te aussi bëgg naa nii ñu demee nii nii ngeen defee nii kaaram continuer nii nekk benn bopp lépp lu ñëw ñu ànd nekk benn defandoo ko waxandoo ko di dóor ba fu bunt di feeñ ñu ñëpp ñu am ci njëriñ dinaa def digression bu ndaw nag parce que fajar bii laa jóge Dakar amoon réunion bi nga xam ne suñu parti moo ko doon def président mu leen di nuyu yenn jigéenu Karang parce que seen lii moo tax ma ñib si man na fa waroon nekk ba dimanche mais lii moo tax ma ñib si suba damay delluwaat donc di wax ne nee na coow bi bëri na si dëkk bi mais coow warul am donc coow bi warul am parce que Sénégal dañ ko war a tabaxaat dañu war a am république bu bees loolu moo tax mu wax nit ñi nañ dem référendum moo ngi leen di ñaan ngeen jàppale ko si référendum bi ñu fexe ba wii bi jàll massivement parce que loolu mooy njëriñu jigéen ñi mooy suñu njëriñ mooy njëriñu xale yi mooy njëriñu ñëpp donc si loolu laa am pour daanele di delloo micro bi parce que mu ngi commencé di guddi vraiment kontaan naa kontaan naa kontaan naa. merci monsieur le maire euh, dégg ngeen kaddu donc euh, véritablement monsieur Thiam euh, bu ñu defee résumé donc l'élu de la ville est très satisfait de la mobilisation. Encore une fois, on ne peut pas développer une commune sans la mobilisation des forces vives qui la composent. Et personne, nul n'a le monopole du développement. Pour développer une commune, il faut que tout le monde se mobilise et, n'est-ce pas donc, euh, qu'on aille ensemble, n'est-ce pas, dans, les, les bases du développement kon monsieur Thiam euh, ma jox la nga jàll si beneen kii orateur. merci beaucoup monsieur Diatta merci beaucoup monsieur le maire discours bi am na solo. kon may ñaan jigéen ñooy ngeen tàcc seen bopp tàcc seen présidente fédération moom lañuy ñuy waaj a jox kàddu gi muy madame fatu Ndiaye Diouf kon Fatou Ndiaye Diouf ñu ñaan ngeen tàccuwaat ko bu baax a baax a baax Fatou Ndiaye kon vous avez la parole. onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahman rahim bonsoir madame et messieurs bonsoir mes invités Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, toutes les femmes de la commune de Karang. asalaamualeykum mbokki Karang nuyu naa leen yéen ñépp ku ci nekk sa tur ak sa sant di beral nuyooyu nag avant may ñëw ci jigéen ñi di beral nuyoo spécial nuyoo sunu góor ñi ndax bu ñoo amee fit ba ñëw fii di di organiser lu toll nii góor ñee ñu bàyyi ñu ñëw fii ndax la may wax toujours rek bu ñu tegoon pression fitnaal ju kon du ma am kon jërëjëf sunu góor ñi yàlla yàlla yàggal seen taxawaay di nuyoo monsieur le maire ndax kër boo fa duggee bala ngaa wax dara dangaa war a nuyu boor borom kër gi di nuyu monsieur le maire ak adjointam bu baax bii nga xamante bi bàyyiwuma benn yoon ma wét ci organisation bi mënoon na ni bokkuma ci bureau bi moo na ma ne kii mais fu ma ko woo rek ak lu ma ko wax rek ci suba ba ngoon mi ngi ci jërëjëf yaa madame le maire di nuyu du ma du ma du ma benn groupement ndax ku lim juum nuyu naa jigéeni kaarang yëpp yëpp yëpp yëpp ndax mënoon nañ ne bañ ne Fandiaye Diouf rek ngeen ni kooku luñ koy doyee mais dañ ne Fandiaye Diouf rek yéen ñëpp ngeen kontaan ci Fandiaye Diouf yore leen maa kon man nag maa leen gën a kontaan bu baax ci bi ni ngeen ci kontaane maa leen ci gën a kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax mm, merci di nuyu autorité yi kaarang yi bàyyiwuma benn autorité xanaa neex merci merci beaucoup merci beaucoup macha allah macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci di nuyu imaam yi ndax déglu seen ñaan yi ndax xam naa ni seen ñaan yi moo tax ñu mën a taxawal lu mel nii ndax lii yombul de boole groupement yi ci kaarang gi yëpp ñi bokk ci groupement yi ñi bokk ci groupement yi yëpp ku nekk taxaw nii rek en masse ñëw nii rek macha allah maa ngi leen di dalal yéen ñëpp di nuyu sama conférencière bi ñu koy wax Mama Sakho madame Diouf ku xamul Mama Sakho war nga koo dégg. tey de maama maama Sakho waa Sangaako xam ko xam nañ kuy maama Sakho ndegem ñoo xam kuy maama Sakho madame Diouf waxantuma nekk Kaarang mu nekkoon fii di jàngal suñu doom di jàngal suñu jarbaat yi kii dama naan ko mooy la dame de fer yow laay yaay la dame de cœur yow kii mooy mère Teresa ku xamul mère Teresa ma wax la kan mooy mère Teresa mère Teresa mooy mère bi fi nekkoon. di dimbale jaboot yi di dimbale néew di doole yi ku jàq ñëw ci moom mu teg la ci yoon wi di la jundi di la ba sa di dalal ba sa xel jëli si lu mu am alal lu mu am rek bokk na koog doomu aadama yi macha allah kook sa bis ba ca mi dina sàngaa ko ne naa la loolu lancement la rek leneen a ngi ñëw yow loo am rek mérite la gërëme ko say waajur macha allah ca kaw ca kanam su loolu weesoo nag ah nuyoo spécial nuyoo spécial nuyoo spécial bi nag dañ koy jagleel waa AFEC bu nee waa AFEC mooy les femmes enseignantes yi fi nekk ci Kaarang gii te seen euh, njiit ñu koy wax madame Guèye Ndeye Dieynaba Sy macha allah yéen lu ji njaaga rek yéen yéen ay njaag yéen bu ma sañoon da ngeen di ñëw toog nii ma jàkkaarloo ngeen di wax ak yéen benn par benn ngeen di ko dégg. ndax nekku leen kaarang rek ñëw di jàngal suñu doom yi daal di yem ci njàngale rek da ngeen a toog ba ñu créé ba lu huit mars ba mu amee yàgg na mais dangeen ngeen a ñëw ne pourquoi pas fii kaarang gi ñu nekk fii di fi jàngale di fi ay xale di fi jàngale xale yi passé te ñaan xale yi ñaan nañ yàlla ñu eh, réussir doon dara ëllëg ñu daal di créer fii ni pourquoi pas ñu créer fii huit mars ndax ni ko femmes yëpp di créer dans le monde entier ngeen ñëw. def ko fi quatre édition ngeen koy def macha allah édition bu ñëw rek dàq morom ma yéen diggandiwoo leen kaarang yéen diggandiwoo leen jigéeni kaarang yéen waa ASEC gaaraama macha allah yal na yàlla yàggal seen taxawaay ci seen turu njiit madame Guèye Dieynaba Sy kii moom kenn mënu koo fay man mënumaa wax ci moom ndax su may wax ci moom damay dem ba mu yàgg sama xol day tooy yow Dieynaba Sy macha allah merci beaucoup mille fois merci merci merci merci merci beaucoup. mënoon ngeen ko yore ñiit ko mais ñiitu leen ko da ngeen ni def nañ quatre édition eh yéen jigéen ñi kaarang ñun moomuñu affaire bi ñun rek eh yéen jigéen ñi kaarang yii ci ngeen bokk ñun dañ fay ñëw rek di liggéey te dañuy dem ëllëg kon yéen pourquoi pas ñu ngeen kii wan nañ leen yoon wi def leen moo waral tey suñu jataay bii ngeen baal ma àq nag wax mi ngi bëgg a gudd te lu gudd soof macha allah ngeen baal ma àq maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp du nuyu sama maire yi di nuyu ñëpp. macha allah mention très bien macha allah. merci madame la présidente euh, dégg ngeen kaddu am kaddu bi rafet na euh, xol bee fees moo tax véritablement elle manque de mots pour dire ce qu'elle voulait dire. madame Koumba Daga kii moo yore xaalis bi ñëw kaarang di jox jigéen ñi kaarang dimbale jigéen ñi rek la fi nekkee kii xaalis bi ñu jigéen ñi jot kii moo koy joxe kii kon ku jar a sargal la te xam li muy wax rek juumte dafay am. tey ci sunu surprise yi ñu def bi ñuy marche tey jii dañ ne jigéen monde euh, Sénégal ba mu daj à chaque année dañuy 31 décembre dañuy fêter bébé de l'année ñun ñu ne jigéeni Kaarang ren jii dañuy innover pourquoi pas ñu organiser journée du 8 mars bébé du 8 mars ñu fêter ko looloo waraloon tey jii bi ñu coordonné ak madame euh, Cissé sage-femme bi nekk fii tey alhamdulilah rabil alamin ci fajar mu woo ma ni ma bébé am nañ bébé ma ne ko loo am mu ni ma góor ma ne ko baax na ji góor baax na jigéen baax na dinañ ñëw sargal ko da dañoo bëgg chaque année ñu di ko bëgg a def ñu nekk fi ak ñu ñàkk fee nekk yépp ñu bëgg ni ni feetee bébé de l'année nit di ko préparer di ko toog di xaar ba minuit di ko feete chaque année da ñu bëgg di feetee bébé du mars tey jii dem nañ ca hôpital ba la ñu am teraanga du tuuti sargal nañ ko euh, fekk nañ ko fa ak i mbokkam gërëm nañ ko sage-femme bi kontaan na loolu lépp ci ci ci initiative bu madame le maire lépp ci xalaatam ñu ndax bàyyiwuma benn yoon ma wéet macha allah merci. merci euh, madame donc sans plus tarder on va donner la parole à madame la présidente de l'association des femmes enseignantes madame euh, Si vous avez la parole. Ah, madame madame jërëjën jëf azubilahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki kaarang maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp mbokki kaarang maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tuur ak sa sant di beral nuyoo monsieur le maire de la commune de Kaarang maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant di nuyu suñ conférencière bi du toog di madame Diouf Mama Sakho di nuyu la présidente des GPF départemental de Foundiougne Kumba dagg Joom ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la wax ne gis nañ sa teewaay jërëjeen jëf di nuyu meer si Cissé bi toog nga xam ne ci autorité coutumière yi Kaarang la bokk ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko wax ne ko nañuy sànni ñaan toujours buñ toll mbokki Kaarang asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu les autorités coutumières et religieuses yëpp yi toog fii su ma ko waxee yaakaar naa ne ñoom oustaz ak bépp keneen ku toog fii rek ci biir nga bokk su ma ku ma fàtte rek nga xam ne damaa juum balaa may commencé nag ngeen baal ma ma sant sama borom kër ndax xëy na boo ñëwee toog fii ba mun a organiser la journée du 8 mars ba mun a yegsi fii yàlla ak moom ndax su ma newoon bul demit du ma dem ma di ci dëgal aussi sama mbokki jigéen ñi ñëpp ñuy waxtaan ak góor ñi te xam ne góor ñi ñooy borom kër yi même bu ñu nee parité aussi fu ñuy munti dem rek góor yi ñooy borom kër yi te ñooy kilifa yi kon nag maa ngi koy gërëm di ko sant di ko wax ne jërëjëf su ma fi ñemee rek yàlla ak yow. ci loolu nag balaa maa sori damay gërëm waa AFEC ndax man bu ma toogee fii ñu naan ma ma Guèye madame ma madame Guèye yaakaar naa ne mboot ñi ci sama ginnaaw ñooñ ñooy ñiy def liggéey bi waa AFEC ñu ngi nee toog maa ngi jàkkaarloo ak ñoom xam naa ne bu ñuy wax la journée du 8 nañ leen wax ne bu lëkk lekkee aloom na ko gërëmee coy ñee ñooy coy yi man duma ci dara man dama ànd ak ñoom rek xëy na dañ ma wóolu jiital ma may liggéey mais du ne lu ma leen gën a xam ne du ma leen lu ma gën a mën la te aussi duñ ne maa fa gën a mag am na ñoo xam ne ñu ngi fa parce que madame Diouf maama Sakho ci suñu biir la bokk xëy na dama leen doy ñu wóolu ma jiital ma ñuy liggéey liggéey bi dëgg la nag liggéey bi métti woon na métti woon na trop ndax booy compter toujours bu jot da nga naan benn te benn foo ko fekk day métti waaye dañuy wax ne bu méttee nga daw mbaa bu méttee nga caalit bu neexee rek di nga rus te yaakaar naa ne waa AFEC defuñ lool kon nag jërëjëf waa jëf waa AFEC dama bëgg ngeen tàccul ma jigéeni jàngalekat yi bu baax a baax a baax a baax a baax lu ngeen leen tàccu rek xeeb naa ko jërëjëf jëf waa AFEC bi ñuy commencé doon nañu wax ne jàngalekat yu jigéen yi xanaa dañu foog ne ñoom moom la journée du 8 mars jàngalekat yu jigéen yi xanaa dañ foog ne xanaa dañ foog ne xanaa dañ foog ne fooguñu woon dara liñ foogoon tey mu ngi nii ñun ñëpp ñoo ko bokk lii lañ doon séentu kon yaakaar naa ne bu ndam amee ñun amuñ ndam yéen a am ndam yéen jigéen ñi waa Kaarang parce que nag yéen a neex a àndal yéen a neex a jiital ñun bu jiitu woon it nekkaa leen ñu def ngeen bañ croiser leen bara du ñegg si fii mais dañ jóg ngeen topp ci ànd ak ñun xeebu leen ñu sefentaluñ leen ñu waxuñ leen ci dara kon nag dama naan jigéeni Kaarang gàcce ngaalaama yéen département de Foundiougne ñu bari ñu ngi yor ci yéen du ne département de Foundiougne dama naa la région de Fatick ñu ngi roñ ci jigéeri Kaana ma di leen digal leen xëy na nag jox naa leen lenge yi li ma waxoon monsieur le maire mu di ko bañ mu ne ma dangay bàyyi ba ñu ñëw officiellement nga wax ko kon nag yaakaar naa tey officiellement la waa AFEC nee nañ yéen jigéeni Kaarang jox nañ leen lenge yi seeni lenge ngoog góorgóorlu leen ñu jëm ca kanam waaye nag jox nañ leen lenge yi taxut ñu bàyyi ba léegi ñu ngi ci seen biir ndax buñ nee jigéen rek ñun ñëpp dañuy sentir ne jigéen la te ñun amuñ benn bés bu dul bés bii suñ nee la journée internationale de la femme ñu war cee sargal jigéen jigéen ju nekk danga ci war a gis sa bopp moo tax ci suba maay wax ne balaa ñoo dem fen nañ fàttaliku suñ mbokki jigéen yi nga xam ne caabi mu ngi leen féetee ginnaaw ñu ñaanal leen yàlla muccal leen ñu génn ak jàmm ñëw fekk suñu fii ñu fàttale ko suñ mbokki jigéen yi nga xam ne ñu ngi ci hôpital yi tëdd seen wérgu yaram demeewul noonu ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñu jóg ba ñëw ànd ak ñun ndax jigéen ñun ñëpp benn bopp lañ dañ naan bu ñu yaree góor yar nañ benn nit waaye bu ñu yaree jigéen yar nañ société bi yëpp kon nag jigéen ñu am doole ngeen su ngeen ko xamee ñu am doole ngeen su ngeen ko xamul ñu am doole ngeen te yaakaar na ne jigéen ju ci nekk bu peesee boppam rek dina xam mooy kan kon nag li ma leen di ñaan yéen waa Kaaral bu leen mos dellu ginnaaw comme commencé nañ di ko organiser at bu jot mu gën a neex ñu ne ren de duñ ko weesu bu déwénee mu gën a tee neex ñu ne ren de mënuñ def lu dàqalee yaakaar naa ne daaw bi ñu fiy jógee dañ noon dootuñ am cérémonie boobu ren am nañ cérémonie bu dàq boobu wan leen góor ñi ne leen mun ngeen a dem wan leen góor ñi ne leen buñ jàppee ñu dem buñ jàppul ñu dem ñun ñooy jàppale góor ñi góor ñi di avancé mais góor ñi buñ ñu jàppale wuti dinañ dem man wóoru naa jigéen i kaarang monsieur le maire jigéen boo leen jàppalee ñu dem boo leen jàppalewoon ñu dem man wóolu naa leen waaw bu baax sax kon nag nañ leen góor góorgóorlu buñ nangu mukk li ma monsieur le maire wax keroog yéen jigéen tàccu ak fecc rek ngeen mun nañ leen woon ne leen góor baax na jigéen baax na ñaari loxo takk tubéy waaye ñaari loxo mooy takk sër yéen jigéeni kaarang góorgóorlu leen ca kaw ca kanam maa leen di gërëm di leen sant di nuyuwaat la conférencière suñ doyen madame Diouf Mama Sakho jërëjëf jëf. merci merci merci madame la président euh, Djeneba Dieye Sy ñu ngi lay nuyu bu baax sa kaddu rafet na DJ DJ merci DJ. merci DJ merci DJ euh, guddi na euh, ma jox sama naataango euh, monsieur Thiam mu defal leen ne li ma def si français tuuti li ñu xam as néew si madame Mama Sakho principale du CM de Médina Sangako monsieur Thiam defal ko si wolof ñëpp dëgg ko bismillah merci beaucoup monsieur Diatta Euh, merci beaucoup présidente AFEC ak waa AFEC yëpp kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant comme ni ko Moussa jaata defee rek balaa ñoo waxee balaa ñoo continuer ci conférencière bi ñu xamale leen tuuti ak moom madame Mama Sakho kon mu ngi gane àddina ci atum 1954 ci île yu Saloum donc elle est née dans les îles du Saloum en 1954 à Niodior précisément donc muy juddoo dëkk bu ñuy wax ñoojoor ci atum 1954 euh, bi mu demee ba mata daal jàng nag comme ni ko tout tànk yëpp di defee dugg na école jàng ba 1975 ci la am bagam kon ngeen tàcc bu baax madame Mama Sakho ndax at mi mu am bag muy 1975 yaakaar naa néew na jigéen ñu ci am bag néew na tam jigéen ñu ci wéyal seen jàng ba àgg ci niveau boobu ba mën a décrocher bag. bi mu amee bac en 1975 dafa wéyal njàngam ci université ba am fa diplôme bu mag a mag a mag bu ñuy wax licence ci wàllu géographie géographie nag mooy déterminer wàllu dëkkin wàllu suuf si ni mu bindoo donc loolu njàng mu xóot la ci am ba décroché ci lu ñuy wax licence ci université 1986 nag ci la décroché benn diplôme bu ñuy wax certificat d' aptitude à l' enseignement moyen mooy diplôme bi nga xam ne moo ko permettre mu nekk professeur mu apte pour jàngale li ñuy wax histoire ak géographie ci collège d'enseignement moyen yi tàcc leen loolu bu baax donc après loolu ñu affecté ko ci CM Makoddu Njaay bu Sokone boobu temps nag Sokone amagul lycée lycée CM bi CM la woon bu tudd CM Makoddu Njaay bu sookoon nekk CM bu nekk ci wetu forage yu Sokone bi pour ñu miin sookoon bu baax Euh, foofu la jàngale ba 2002 2002 lañ ko affecté mu ñëw fii ci CEM bu Kaarang ba tey continuer liggéeyam di jàngale histoire ak géographie mais dafa am xew-xew bu am solo buy am ci carrière am en 2009 mooy at mi méngoo ak at mi gagné benn poste bu am solo mooy poste principal bu CEM bu Medina Sàngaako ngeen tàcc ko bu baax. yaakaar naa su nekkul jigéen di njëkk a gagné poste principal ci département Foundiougne tamit bokk na ci jigéen yi ko njëkk a nekk su ma juumulee sax dinaa wax ne moom la donc ba léegi yaakaar naa kon mu ngi CM euh, bu Medina Sàngaako yaakaar naa voilà mu may def signe ne dem na retraite maanaam noppalu na madame Mama Sakho ñu lay ñaan sa retraite bi nekk retraite bu ah, sedd retraite bi sax ëpp jàmm ba nga nekkee activité yàlla na retraite bi nekk retraite jàmm ak salaam retraite wér-gi-yaram retraite gudd fan retraite boo xam ne bu la jig la léegi ñu jox la kàddu gi euh, ginnaaw loo xam-xam ma demba ma dem ba gën laa xam boppam ñu jox la kàddu gi su fekkee présentation bi am na benn njuumte bu ci am wala lu manqué di nga ko sa bopp après nga wéy jigéen ñi ci conférence bi thème bi ma fàttali ko moom mooy taxawaayu jigéen ci wàllu société bi le rôle de la femme au foyer lan moo war a nekk taxawaayu jigéen ci biir kër ga donc madame la conférencière vous avez la parole voilà ngeen jóg tàcc bu baax conférencière bi balaa commencé jóg leen ngeen tàcc ko bu baax IPM bàyyi léppam ngir ñëw defal leen conférence ci lan mooy rôle ak responsabilité wu ci biir société bi kon madame Mame Sakho jox la kàddu bi Thank you. damaa a ñëw ci Mama Sakho mi sama jëkkër bokk ak moom classe te xeebu ko keroog ba mu xewlee ànd nga defal ñu lu naa jëm ci yow ndax xam naa fi ma jëm ñoo ko maama xuma noona xana xana roofe ko maama waaw ñoko maama huyang no maama ak monsieur le maire ñoo ngi ndax ni ñoo bëgg a gàttal rek saako waaye foog ma bokk nga ànd ak Dieynaba Sy tubaarkalla maa sha Allah baat bee dee foog ma merci beaucoup kon ñu jox kàddu gi conférencière bi di madame Mama Sakho di nga mën a téye ñaan yàlla mu way ma wér gu yaram ba ma commencé bisimilah rahmaani rahim te eh, jeexalee ci alhamdulilahi rabil alamin ma ne comme guddi na xam ngeen déjà presque 17 heures jot na dix 19 heures jot na li may ñaan ngeen may ma ba ma jëkkali suma intervention dégg ngeen maa ngi yéen ci dëkk bi kon nag may leen ma ba ma jeexal sama intervention amul na ñibbi tànk parewuñu de dégg ngeen voilà bugg a jàng yàlla may ma macha allah xel wu neex. ma jàng nag ba am licence am kaayam avant cela amoon naa euh, ma ngi doon jàngale à Isaac Foster à Dakar j'ai fait cinq d'enseignement de chargé d'enseignement bi ma defee sama formation à l'école normale ma ñibbi si Sokone la ko waral bugg sama goro sama goro benn doom bu góor la amoon te nee na jëkkër ji ne amul possibilité mu ut beneen jabar ju dem ci wetu yaayam ma ne ko oh naa ñibbi ci wetu sama goro toppatoo ko toppatoo ko bi am gërëmam ndeysaan yal na ko yarale yërëm meer boobu léegi nag li ma jëlee sookoon jàmm ak salaam la de c'est la création du lycée mu amoon cinq sites yoo xam ne tout la journée tu vas d'un site à l'autre attanuma ko woon boobu waruwaay bariwuloon ma ne ah naa dem Karang fekk Karang c'était une nouvelle création je fais partie des pionniers du, du lycée de Karang maag Mamadou Mendy ak Malick Niass ñoo fi nekkoon man ma yore histoire géographie ISEN dangeen bëgg defal leen palmarès yéen a ma gën a xam tey ñi ci sa bopp sax yéen a ko gën a xam maa doon dox biir Kaarang ba ma jigéen mu rëy rëy rëy ba xolam sedd man ne ko xale yee fi jaar de xale yee fi jaar que man dama amoon feem bu ma jàngalee xale yi ba ñu sonn moo wax lu reetaan lu li ma sonnal pël yi nag li ma sonnal joolaa parce que c'était des cousins nga gis xale yi dinañ reetaan ba seen xol sedd après ma ne leen revenons à nos moutons loolu nag dañ ko doon wax ci biir kër gi ñëpp xam ma yéen ñëpp ma xam amul ku ma xamul te encore bokk naa ci association yu bari je suis j'étais et je suis dans l'association des femmes des enseignants je dans l'association des femmes enseignantes yore naa fi teg au niveau du lycée depuis 2002 ma ne nag bañ ma affecté à Medina Sàngako ma ne damay bañ ña fa nekk ne ma déedéet léegi damay bàyyi ñu ne doo bàyyi liñ ñuy fajal ci suñu CM bi boo demee dootuñ ko dootuñu am ku ko fajal ah man itam ba continuer ba léegi tonte nag depuis 87 laa ko initié à Sokone indi ko fii kon nag yàgg naa agir ci mouvement des femmes te defe naa fu ma nekk bëgg naa nit ñi mais ñëpp ma bëggu macha allah li ma li ma li ma jëlee Sokone mooy eh, ñëw fii parce que je ne pouvais pas supporter d'aller d'un site à l'autre mais encore bi ma ñëwee fii ba euh, le premier principal dem am beneen principal boo xam ne daf may boole ak xale yu ndaw yi bu bu tukkee ñooñu damay commandé man je ne vais pas accepter man maa nekk euh, ki topp ci moom mais buy dem mu boole ma ak xale yu ndaw yi ñu may commandé ma ne ko du am li ngay def dakkoo ma ko man itam naa dem nekk principal ci laa nekk principal en mille 2009 à Medina Sangakon ma ne je suis la première principale ku jigéen bu yoree établissement dirigé ko de la région de Fatick jigéen bi njëkk nekk principal euh, chef d'établissement ci biir Fatick région de Fatick man la léegi itam foofu jàmm ak salaam rek moo ma fa jële mooy sama retraite lañ ma defal ñëpp xam nañ ko jërë ngeen jëf léegi nag ma dem ci sama thème bi mooy le rôle de la femme dans le foyer dinaa ko étendre fu bëree bëri nag pour le développement de Karang léegi li ma bëgg aussi ngeen dégloo ma ak xel bañ maa dégloo ak xol bu ma wax dara ngeen e man lay waxal de déedéet damay yeddaate te yàllaa tax nekkul ne dama am situation nag ngeen dégg dégloo ma xel bañ maa dégloo xol léegi nag yéex fii li koy xajaman tuuti mooy que ne dégguma wolof mais am na ku ma jege te xam na ne dégguma wolof ah, bu ñu demee ci notre thème le rôle de la femme dans le foyer leen leen jigéen ñaar ñu ñëwante góor ak jigéen ñooy nobante kan mooy dem uti morom ki góor gi yéen ko wax de léegi góor gi mooy uti te mooy def alal boobu ñaata la doon joxe waaw trois mille cinq cent mooy ñeent ak taransu léegi ku am jabar lan ngay def ay million ah xam naa ne as tuut dina ëpp deux cinquante mille ci may bi rek ak ci takk bi léegi nag mariage bi bu ñëwee si tu n'as pas des millions doo marié sinon aussi du neex du rafet li may ñaan nag ngeen bàyyi yàq bi ñuy yàq gis nga xaalis boobu yëpp boo ko rassemblé daañ di ko dugal ci feet ak ci may bu njëkk ak may na ko lii may na ko laa est-ce que yorin ba dina dina neex dina yomb du yomb boo moytuwul sa tu seras ba nga xam ne jabar ji bu ñëwee na nga ko waroon defal na nga na mu waroon a nekkee ci kër bi dina am des difficultés parce que tu as fait certainement un prêt parce que tu as trop dépensé waaw i bor la ciy topp ma ne buñ demee ci loolu ma woyal leen woyu séeréer séeréer ñoomin bu woyoon boobu cax la woon loo xam ne dafa dafay tax ñépp jëleeti enseignement bu positif ibugaamo korese bug jigeeno moonu buheena yaay no koor haagama baye bugaamo korese bug jigeeno moonu bugeena yaay no kooro haagama baye mooy ne nopp naa sama jëkkër bugg naa waajuram yi bugg naa ñi mu bokkal ñëpp ku buggul yaa eh, eh, ñi jur sa jëkkër buggoos mbokkam yi say si wuroo danga caaxaan si te ku leen bugul boo moytuwul doo toog ci sa sëy hmm? Hmm. kon nag buñ demee ci loolu nag ñu dem ci li war jigéen ci sëy yéena ma ko gën a xam sax mais dañ koy kiyaat rek on renouvelle dañ koy baamtuwaat rek dañ koy baamtuwaat ma ne ñaar ñu ñobante njëriñu jabar ja warul yem rek ci jëkkër ja dangay toppatoo sa sa sa parent wu jëkkër sa goro yi gis nga ni ngay dawal sa jëkkër safaak wa defal ko sa sa pa eh, parent sa góor yi nga gis boo amee problème du ñu nangu nga bouger ñoom ñoo lay jàppale bu ñu kontaanee ci yow bu jëkkër ja sa kontaanul baax na ma ne dinaa ci wax loo xam ne lu ma yàggoon a bugg a wax ci biir kaarang ji yéen ñépp liggéeykat ngeen dangeen ngeen jàmbaare ñu mel ni yéen bariwul mais je sens que à Karang il y a de gis nga yéen jigéen yi liggéeyu produits alimentaires yi ngeen ay jaay parce que Karang c'est un dafa dem ba ngeen négliger la propreté du village alors que Karang c'est village carrefour dinaa ko wax gis nga euh, li ngeen ay jaay beñe yeeg akra yeeg ñoom seen dafa tax ba ngeen négliger propreté bi mooy cetu dëkk bi te boo jógee fajar bu ñu noddee ba pare nga tàngal ndox pour sa jëkkër mu dem sangu moom itam war na dem julli ji hee il faut respecter le quatre waxuma les cinq le cinquième danga ko mun a def rek def ko muy aji màkka mais julli bi ñu koy def te yàllaa tax c'est le premier pilier de l'islam jëkkër ji dem na julli ji en attendant yow itam war nga julli de looy def bu bu julli jotee rek bàyyi nga dem julli gis nga nga balee sa néeg toujours da ngay nay setal seen néeg yi des fois vous négligez l'intérieur de la maison yenn saa yi pour ngeen bale biir kër gi sax dangay ngay waaru bu ñu balewul biir kër dinañ bale ca mbedd ma te yéen da ngeen bale war bale seen néeg yi bale ëtt bi dem ba ca digg mbedd ma votre voisine de de de de waaw mi nga jàkkaarloo moom itam bale depuis sa maison bu. biir néegam ñëw ba ca mbedd mi keneen ki noonu keneen ki noonu dëkk bi set un minimum de mille francs mun na tax ñu yóbbu seen badit mi dëkk bi set mu mel toujours ne dañuy dañuy nëg am na fu ñu koy defee ci biir Sénégal de boo demee Sokone noonu la boo demee Niodior foo jot rek mun am na lu ko doon fàtte nag dañuy sargal la journée ji 8 mars jigéen yee ko moom gis nga dëkk bi ma juddoo ñoo joor une reine buur bu jigéen moo ko sanc bande ñaambo buur buur bu jigéen sama maam yi bokkoon na ci ñi ànd ak bande ñaambo kon nag buñ ma waxee ma wax ci journée premièrement de 8 mars dama kontaan dama bégg ba mënuma leen wax ni ma kontaanee kon bu ñu setalee dëkk bi setal boobu def ñuy indil wér gu yaram mais nag ma demagum ci li ngeen ma sant li ngeen war a def ci seen foyer ma ne booy dewal sa jëkkër mar marwa sa waa kër bi ñépp nañ ci bokk nga gis nga am ndam te maa ngi ñaax bu dee kuy sëy mu ngi toppatoo jëkkër nu mu waree mu ngi toppatoo waa kër gi nu mu waree waaye goro yi nañ ko wax goro yi nañ koy wax di këram seen goro yi xale bu ñëwee jógee kër yaayam ak kër baayam yéen a nekkati baay ba yéen a nekkati yaay ba ñépp rafetal yéen ñi fekk si ngeen rafetal mais ñoom ñi ngeen fekk itam ñoom ñu rafetal nga gis yëpp baax yëpp neex yëpp saf suukar wante seen goro yi ñi seysi si ngeen di leen ay seet comme li mu am fii amu ko woon kër papam amu ko woon kër yaayam loolu du neex de mbaa yow mi sëy nga mën a toppatoo sa goro yi ah déedéet sëyal muse rekk bàyyi ñeneen la sa sëy munul neex kon nag ku nekk li la war def ko yaa ngi ci togg bi yaa ngi ci bale yi bi léegi yaa ngi ci póot mi ci paase bi mais yépp dafa ànd war a ànd ak ak kontaante dafa war a ànd avec le sourire looy def rek na ngay muuñ na rafetal wante yaa ngi mer ba ku la gis rek xam ne kii li muy def nekkul xol bi rafetu ci baaxul parce que boo ko defee tu ne tu dans la joie dans la la la la, euh, joie euh, euh, yére yooyu mu ngi génnee ween wi mu ngi génnee taat wi ñi ci yàlla bind nag macha allah ñu ñu ñu ñu am taar boo xam ne ak back background boo xam ne buy dox di def. xam ngeen ko ndaat saay ndaat saay bu ko defee nag góor ñi dañ koy bugg mu teel a dem marié naka la ñuy boobu nag parité du ñu parité ndaxte boo jëlee néegu sëy parité amul foofu néegu sëy complémentarité moo fa am buñ demee dans les services nag foofu la parité kon nag nañ ko madame la conférencière ngeen tàcc ko waat bu baax a baax a baax muy madame Mama Sakho ci conférence bu neex bu am solo bii mu ñu defal léegi dañuy jox kàddu gi madame Koumba Daga nekk présidente départementale de GPF du département de Foundiougne moom tamit mu sànni ci ay kàddoom ndax Foundiougne la jógee ba fii pour fêter ak yéen seen wit mars su ko neexoon mu des Foundiougne pour fêter ko mais daf ne dafay ñëw Kaarang pour fêter ak yéen ma leen di ñaan ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax donc madame Coumba Daga kon vous avez la parole. jërëjëf merci jërëjëf jërëjëf DJ merci jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf <laughs> merci jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf monsieur le maire de la commune de Karang Monsieur le maire de la commune de Karang, Mesdames, Messieurs les notables de la commune, euh, Mesdames les femmes des groupements féminins de la commune de Karang, Monsieur l'imam, euh, Madame la présidente de l'association des femmes enseignantes de Karang, euh, Mesdames, Messieurs les invités, Salam alaikum Boki Karang, maa ngi nuyu ñu fi teew ku ne ci turam ak santam di rafetlu teewaay bi te di sargal bépp jigéen boo xam ne teew na fii tey ci suñ bés bi suñ waxee 8 mars dafa nekk journée boo xam ne c'est une journée internationale bépp jigéen bu nekk ci àddina di ko sa di ko féete ren thème bi monsieur le maire dafa nekk planète cinquante cinquante d'ici l'an 2030 franchissons le pas pour une égalité des sexes suñ ko waxee égalité mënul am madame la conférencière wax na ko complémentarité moom mën a am ma am yaakaar nag ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii muy fédération bi Fatou Ndiaye jiite madame le maire def ci li nga xam ne mooy laajte mu béy ko yeneen jigéen yi nekk fii mëttali ko parce que ku gis seen mobilisation bi ngeen def tey xam ne ñu takku ñoo ko mën man dama xëyee Foundiougne am 8 mars ma financé benn euh, groupement boo xam ne ñu ngi koy wax genre équité et développement ñoom ñu am un sous-thème comme yéen inscription à l'état civil parce que le cas de l'inscription à l'état civil dafa nekk problème national surtout ci suñ département Foundiougne bi ñu leen di ñaan yéen jigéen ñi képp ku amati doom ci maternité bi ñu jox la sa certificat d'accouchement balaa nga fay jógee demal état civil inscrire sa doom dara gënul métti ci àddina sa doom jàng ba dem classe d'examen munul examen lu tax ñu ne parce que amul kayit loolu moom musiba la ñun am na laajte boo xam ne ñu ngi ko ciy béy parce que ñu ngi recensé xale yi nga xam ne amuñ kayit pour ñu jàppale leen ñu ngi nekk en partenariat avec euh, le président du tribunal départemental pour ñu seet xale yi nga xam ne amuñ kayit nan la ñuy def pousse leen ba ñoom ñu mën leen a jàppale ñu am ay kayit ci audience foraine yi. xam naa collectivité locale yëpp ku ci nekk mu ngi ci dugal loxoom yéen jigéen ñi encore une fois jàpp leen mu dëgër parce que fonds bi ñuy wax su ngeen jaaree ci seen mairie su ngeen souscrire di ngeen am ay financement fonds bi laa leen di wax PUDC mi ngi fi indi na moom itam ay projet indi na ay équipement jàpp leen mu dëgër li ñoo fait la force wax ji nag du mën a bëri parce que dafa guddi ma war leen a bàyyi su ma sañoon damay toog ak yéen madame la conférencière ba affaire bi jeex mais nag jaam ak pexe yàlla ak dogal yéen ñëpp leen di gërëm maa leen di sant rafet seen organisation wasalaam. merci madame la présidente départementale des GPF de Foundiougne euh, am na message boo xam ne moom moom la ñu bëggoon jàllale mooy par rapport à l'unité départementale assurance maladie. voilà kon dañuy jàll ci remise cadeau yi balaa ñoo continuer. Euh, ma leen di signaler ne cadeau bébé 8 mars moom jox nañ ko ko ba pare léegi mu des ñetti cadeau yi ñu war a remettre euh, cadeau bi njëkk ñi ngi koy war a remettre madame Mama Sakho ñuy ñaan madame Yacine Badiane di première adjointe au maire mu remetre Mama Sakho cadeau donc euh, madame Yacine Badiane première adjointe au maire mooy remettre madame Mama Sakho ñu leen ñaan ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax. ñu delloo njukkal suñu conférencière bi ak conférence bu am solo bu mu fi développé voilà donc euh, <laughs> merci merci voilà deuxième cadeau bi ñu ngi ko war a remettre madame la présidente de l'AFEC di association des femmes enseignantes de Karang et environ madame Dieynaba Sy ki ko ko war a mooy présidente de la fédération di madame Fatou Ndiaye Diouf madame Dieynaba si ñu ngi lay ñaan nga jóg ñu jox la sa cadeau yoo tamit di présidente AFEC ñu ñaan ngeen tàcc bu baax waa AFEC yi nga xam ne ñoom ñoo waral lii parce que ñoom ñoo ko initié loo gis rek am na ko commencé kon waa AFEC ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci initiative bi ngeen jël nii merci à tout le monde donc ñu ngi woon cadeau bi yeneen membre AFEC yi pour wan leen ne cadeau bi yéen ñëpp yéen a ko bokk donc les femmes enseignantes nous vous remercions ñu permettre leen ñu jël photo ñu jàll ci dernier cadeau bi voilà merci donc dernier cadeau bi xam naa ne foog am ku jëlal cadeau madame Dia madame Dia nekk moom tamit conférencière bu bu mën li muy def donc année yu yëpp passé moo fi doon def conférence nekk directrice d'école ci Passy euh, madame Koumba Dagga nekk euh, présidente départementale des GPF du département de Foundiougne présidente yaakaar naa mën na ko jël président AFEC présidente AFEC no bàyyil présidente AFEC mu jëlal ko madame madame Guèye di madame Dieynaba si mu ngi ne donc voilà remise symbolique la remise symbolique rek madame présidente mën nga taxaw noonu voilà pour ne pas vous déranger mën nga taxaw noonu donc ngeen may loxo madame Dia moom tamit mooy ki nga doon defal conférence bi daaw. voilà merci léegi dafa am benn. Euh, bien euh, comme ni ma ko waxee sànq UDAM c'est l'unité départementale assurance maladie xam ngeen ne le rôle de la femme au foyer mooy toppatoo njaboot yi si wàllu santé kon ki ñëw na pour jàppale njaboot boobu si wàllu santé kon monsieur ñu jox la kàddu ñëwal fii. Euh, Euh, yéen waa Kaarang maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen gërëm ci seen teewaay bi nga xam ne moom ngeen taxawee ci seen bés bi nga xam ne yéen jigéen ñi yéen a ko moom waaye buñ nee jigéen rek xel yëpp tey dem surtout ci wàllu wér-gi-yaram ci jigéen lay dem lu tax ci jigéen lay dem bu xale jooyee ma nga jëm ca yaayam te li ëpp ci loolu xale yi seen bopp yaay ji dañuy dem ba pare doog ko ñëw ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi maanaam borom kër yi ñu aviser leen leen ne kat demoon naa hôpital ah, def naa lii def naa lii léegi nag mbir yi dafa yomb parce que li nga xamee ne mooy idam bi euh, dafa doon loo xam ne kuréel la goo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ci nekk boo ci dugalee sas tuut boo demee fii ci bérébu fajukaay bi doo joxe lu dul téeméeri dërëm au dañ de ñeenti téeméer te comme dañuy wax jigéen ñi aussi ñooy am doom képp jigéen boo xam ne dafa ëmb bu fekkee ne da nga dem ci fii nga xam ne ci bërëbu fajukaay bi la yaa ngi joxe ñaar téeméer au lieu de junni bu fekkee ne urgence la aussi yow yaa ngi joxe ñaar téeméer au lieu de junni loolu yëpp mu doon ay euh, avantage yoo xam ne surtout ci jigéen ñi la gën bëgg gën a bëgg ñu dugg ci biir UDAM boobu moo tax fii dinaa fi delsi boo fi delsee képp koo xam ne présidente de groupement nga dinaa ñëw waxtaan ak yow pour ñu seet sa groupement naka la ñuy mën a fexe ba dugg ci biir UDAM bi UDAM bi nag ñun la fi nekkal ndax boo xoolee UDAM bi ñu nu taxawee tey boo demee euh, Sokone au lieu de dix mille francs yow yaa ngi joxe cinq cent francs bu fekkee da nga jaar ci poste de santé bi léegi ci biir cinq cent boobu da nga ci am échographie da nga ci am rajo da nga ci am analyse te loolu yëpp ci biir téeméer bi ak sa bokkin ci biir UDAM bi moom moo la ko may ba tax na daal yéen ñëpp maanaam président yi nekk fii yëpp am naa seen contact dinaa leen woo dinaa jaar ci monsieur le maire comme ni ma ko defee woon te monsieur le maire bi xam na luy idam ndax moom moo nekk président antenne idam kon nag yaakaar naa ne bi mu nekkul dara lu dul loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag comme ñun ñëpp ñoo ko bokk li ñuy wax ñeexu mbooloo mbooloo moo koy tuur wasalaam ngeen baal baax Merci, euh, Monsieur Udam, Assurance euh, départementale Donc, Monsieur Cham, euh, nous Voilà. Hum? waa kon ñu continuer rek dañuy jox kàddu gi madame la première adjointe au maire di madame Yacine Badiane moom tam mu lancé ay quelques mots rek balaa ñoo clôturer cérémonie bi kon madame le maire di madame Yacine Badiane vous avez la parole. waaw madame la maire mën nga may ko musique DJ jigéen ñi yëngatu tuuti. kontaan nañu waaw ndeysaan lay lay la la waaw waaw waaw waaw waaw doo fi daanu sa ndey la ba cay sama seer yi xam nga ku fi daanu sa ndey la ba ma doo daanu fii fi daanu sa ndey la lay lay la laa doo daanu moom bis fi daanu seen na yàlla ba max doo daanu waaw mënu ñoo ñàkk bañ a wax loolu ci suñu bàjjan saakura waale nay sa njiglaay ndax boo àndee ak Moussa Gomis mii di sama goro ak Faat Njaay Moussa Diouf ak gay na ba si suñu doom te dara ñaawu ca yal na yàlla la fal leen cat yal na yàlla guddal seen fan demal ba mu neex saakura waale dundal ba mu yàgg sa dund gi am na njariñ merci ange billahi mina seytaane rajim bisimilah rahmaani rahim jigéen ñi taxaw na ñëpp toog jigéen ñi taxaw na ñëpp toog bu kenn jóge fii te affaire bi tasul waxoon nañ ci commencement bi ne kaarang mun nañ organiser lool mais bu timis jotee ñëpp tasaaroo te lii ñuy sunu bés la te bés bi benn yoon lañ ko am ci at bi kon na ñëpp jëlaat seen sees toog ñu yeggali sunu bés ndax bés bi ñoo ko moom te bés bi minuit lay jeex kon toog leen asal asalaamaaleykum euh, mbokku Kaarang kontaan naa tey trop ci bés bi ñu toll yal nañ ko yàgg di feete ay atu at su ma nuyoo waa Kaarang damay jël njiit nuyoo bi teg ko ci njiitu dëkk bi muy monsieur le maire su ma nuyoo monsieur le balaa ma si mun a teg kenn am nañ ay gan am nañ lépp mais duma mun a jégg afek di ci teg keneen ndax tey bu ñu toogee di màggal bés bi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di jàngale ñoo màggal bés bu toll ni kon il faut ñoom la ñuy njëkk a jiital suñu nuyoo teg ko seen loxo ñu ngi naan madame Dieynaba Sy madame Guèye Dieynaba Sy asalaamaaleykum kontaan nañ tey trop ndax liñ dem ut tey am nañ ko monsieur le maire keroog bu ñu faloo mu fekk ma sama bureau ma toog mu ne ma looy def ma ne ko dara mu ne ma yaas yi soo gisee ma indi la fii damaa bëgg soo taxawee jigéenu Kaarang wër la damaa bëgg nga boole jigéen ñi damaa bëgg jigéen ñëpp sax nekk benn loxo nekk benn tànk nekk benn bopp lu may yootu teg ko sa loxo nga joxal ma ko jigéenu Kaarang ndax loolu mooy sama yéene. kon bés bii bés bii xeebuma ko su ma monsieur le maire mais loo waxee loolu ma tol sama dàll xamuma naaj xamuma mu taw xamuma xiin na xamuma lenn may dox di dox loolu pour Karang am ko xalaat naa loolu ma ne duma ko mën mais su ma xoolaatee nit ñi xam dinaa ko mën ndax li tax ma ne dinaa mën bés bi mooy Karang yëpp bàjjen lañ may wooye kon bés bi mën naa ko waaw kon su ma bés bi su toogee dëkk bi yëpp fu ma tourné ñi may wax bàjjen ma xam ne mën naa bés bi bés bi jomm ma kontaan tey trop suma ma mënoon a fay konoon tey dinaa fay jigéenu kaaram ndax jigéen ñu am jom laa dëkkal jigéen ñu bëgg seen bopp jigéen ñu nangoo liggéey jigéen ñuy njëkk yeewu ci dëkk bi jigéen yi mujjee tëdd kon jigéen ñooñu jiite leen daf ci man ndax xam naa ñan laa jiite kon tey jërëjëf waa Karang maa kontaan su ma jógee foofu suñu conférencier bii keroog ba mu retraité la ñëw dugg directement sama bureau mu ne ma maa ngi sa ginnaaw loo soxla loo bëgg waxtaan lu la jaaxal ubbil naa la sama bunt bul ñëw sama kër sama numéro téléphone a ngi nii woo ma maa ngi sookoon mbala maa ngi sàngaa maa ngi ñoor ñoojoor foo ma woo ma wuy si la parce que yow laa bëgg àndal kon tey bésu delloo njukkal la suñu delloo jigéen ñu njukkal man am naa ñu nga xam ne maa leen war a delloo njukkal kon jigéen ñooñu Mama Sakho mii tey jiite ne ji euh, nekk suñu conférencier am naa njukkal bu ma ko delloo kon maire Mama Sakho félicitation waaye ñu ne ku ñeme dañ la may fit ku ma may fit mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di jàngale taxaw ci journée bi bu jotee sama nopp te mootuma nelaw lu nekk day dee na ba si mii day ñëw mille su mënumaa compter ñaata yoon la may fëgg Yacine jógal ci bés bi madame le maire bul toog madame le maire jógal kon kooku tey su taxawee sama kanam daf ma dooleel ma am fit lenn nag moo ma si xaw a kii tuuti bi ma dugg see si biir gis waa AFEC toog fële mu gën a sori affaire bi xawoon na maa jiixi jaaxa waaw moo ma pour ma ñemee ñëw toog ndax ñemew ma woon toog di leen seen nee si ginnaaw maa ngi ñaan nag bu beneen yoonee suñ ko kiyee nañ leen may tuuti place ñu toog ci kanam ndax man ñoom ñoo may dooleel su ma leen gisee laay gën a ñeme parce que ñoom ñoo ma won yoon bi kon ñooñu dama leen bugg ngeen leen may nuyul maa ngi leen di bugg ngeen tàccul ma bu baax a baax ma may nuyu sunu góor ñi ndax kenn mënu leen a fay ñëpp wax nañ ko sunu ñemee ñoom ma ndax bu ñu bunt xataloon wan na ñu leen ay jigéen ngeen tekkiwu leen dara suñu waaw rek ngeen di wéy konoon tey bés bi duñ ko ñemee taxawal mais suñ ko taxawalee ba mu yegg si fii am na loo xam ne tamit dafa xaw a des su ngeen ñu mayee bu leen mayee bopp rocci làmmeñ ndax may nañ leen bés rek muy le 8 mars journée mondiale de la femme te bés boobu mënuñu fexe ba mu nekk férié kon monsieur le maire am na lu manqué. kon loolu ma am na lu manqué ndax bëgg nañ bës bi bu amee te mu nekk férié benn jigéen du demati école benn jigéen du dugg ci bureau ñu moo xam ne ne bés bi suñu màggaay ak nu mu toll waroon nañu jël bés bi mais ñu ko férié kon monsieur le maire kooku nag yéen autorités yi yéen ñiy wax ca kaw dénk nañ leen bés bi ba bu jotatee na bés bi nekk férié buñ nekkati bés de liggéey ba ba jour de travail ah mu kon jeex na nee nañ jigéen ñi nee nañ may nañ seen bopp feet suba ñoom férié lañ koy def kon jigéen ñi gàcce ngalaama liñ leen dem tuwooyee wuyu ngeen ko ñu ngi sant ñëpp kontaan naa trop ndax dégg ngeen lu fi conférencier bi baax ci mbirum jigéen xam nañ ne jigéen taxawaayam yaatu na te taxawaayam euh, mooy mooy njëkk mooy mujj mooy def lépp ndax ki nga xamante ne dañ na boo yaree benn jigéen yar nga àdduna kon jigéen ñi nañ góorgóorlu ñu dégluwaat conférencier ba conférencière bi ñu bañ a jóg tasaaroon parce que lii rek lañ fi am lii balaa 10 heures incha allah ñëpp dinañ fi jóge kon nañ leen toog ñu mun tuuti affaire bi continuer mu yegg maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp monsieur Thiam maa ngi lay gërëm mais am na loo xam ne tamit des naa monsieur le maire contenté bu mu am tey ci bés bii dafa dem wax ne ne lii munu ma ko tey woo na ma léegi nee na ma may naa la 300000 nga joxal ma ko jigéenu kaaram <laughs> kon monsieur le xale Fat Ndiaye nee nañ nañ ko jëndee xar michu ko parce que loolu lañ soxla ci kii bi kon ma bañ a guddal kontaan naa trop aw lu ma leen mun a fayee waaye maa ngi leen di bàyyi ñu dégluwaat sunu conférencier bi di nuyu sunu yaay sunu tante sunu kilifa muy madam Cissé Ndeye Cissé moom mi nga xam ne ne dafa ñëw ci kaarang yàccaarut fu mu gis jigéen ñi toog mu ñëw dooleel leen kooku am nañ njukkal buñ ko delloo kon maa ngi koy delloowaat njukkal moom madame Cissé maa ngi jataay bi neex na torop mais bu ren bi dafa yokk ci man ndax lu tax mu yokku damaa xëy rek naari gàttandu ma ne ma pour pourquoi pas ñun ñu ñëw bokk ci sa journée ma ne leen journée bi moom ma ko ñun ñëpp ñoo ko moom ñu ne ñun nag ñu ngi ci sa ginnaaw def seen i mël fa suba ba tey ñu ngi tëgg bi ma yegsee dañ maa fecc loo fi damaa fecc ba bugg a dee kon maa ngi jaajëfal naar yi nga xam ne de ren lañ dugg si ci affaire bi association des lawbe yi ren fi dugg si kon il faut ñëw ñu ma bu dee loo leen jukkal ñu pañ xam ne ne ñun ñëpp ñoo moom bés bi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam